نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي mbokk internet yu Sans Limites TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo kontaan ci ànd bi ngeen ànd ak ñun te nag ñu am mbégte euh, dalal fi kilifa gi nga xamante ni ñëpp xam nañ ko ci wàllu faj wàllu ñaan àddina bi yëpp daanaka daal di koy xam rawatina diwaanu Mbour muy Cheikh Babacar Diouf Rahma euh, sëñ Babacar ñu ngi lay ziar di kontaan ci dalal bi. ñu ngi lay nuyu bu baax euh, yéen waa Sans Limites di wax tahiyatan wa sawqatan wa ridatan min Cheikh Babacar Diouf ñu ngi nuyu waa Sénégal yëpp di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu waa adduna bi di nuyu waa Diaksura eh, di leen nuyu bu baax a baax ci dalal gi ngeen ma dalal salaamaaleykum wa rahmatullah. macha xam naa nag eh, kenn du wax nag wàllu wàllu faj ndax ñu bari nee nañ faj seet mooy buntu ñaan xeetu seet yi nga xamante yàlla may na la ko lan nga ci baaxee jaam yàlla yi. waaw seet dafa bari façon ay façon la. waaye yi nga xam ne ni man moom laay jëfandikoo eh, ñetti façon seet rek la benn bi mooy istixaar yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko diglee moo wax nit ñi na ngeen na ngeen tànnaloo yàlla li nga xam ne ni mooy seen mbir beneen bi ramle la ramle danañ koy def ci ci suuf eh, beneen bi nag eh, seet la boo xam ne ni ci wàllu kurus lay nekk wala wàllu ndox yii laay jëfandikoo waaye bu dul yii moom man du ma ko jëfandikoo asalaamaaleykum wa rahmatulah. foo munti nekk ci àdduna bi rek bu bu wootee ci numéro yi rek di ko mën a seetal. ak fu mu mën a nekk ci àdduna kooku moom mën nañ koo seetal wax ko li nga xam ne nii moom mooy ay biddiwam wax ko yi nga xam ne nii aussi mooy ay saraxam yooyu bu ko génnee rek incha allah rabbi eh, yàlla mën na ci def sutura asalaamaaleykum wa rahmatulah. macha allah macha allah wàllu euh, faj wàllu seet euh, rawatina seet bi nga xamante ni mu la ubbee waxtaan bi yàlla may na ko ci lool ba fu ne la ko jàmm yàlla di wooye rawatina ay saraxam yi nga xamante ni saraxam yu baax la macha allah alors bu na yi nga xam ne na Sénégalais yi te ñu bari dañuy taxaw naan maa ko mën maa ko mën yow na la ci lool lan nga ciy baaxee jàmm yàlla. waaw hémorroïde dafa bëri façon dafa am boo xam ne nii day génn am boo xam ne day nekk ci biir Eh, Sénégal fi ne wala adduna bi li ci ëpp ci nit ñi dañu am hémorroïde lu ko waral nag mooy lekk yi moo baaxut ndax hémorroïde bëggut pat eh, bëggut pat te nit ñi li ci ëpp ci pat rek la ñuy la ñuy dund waaye lan may màndarga yi nit ki ne amee na hémorroïde mooy nga gis ne tànk yi muy faral di tàng ginnaaw gi am picc muy faral di cher lu bari bari am na ñoo xam ne day dem ba mu gi seen biir yi day yuuxu eh, ñi ngalawal waaye ngalaw li sax du am benn xet daa iman seen biti di jël air loolu foo ko gis rek jàppal na lii màndargay hémorroïde la hémorroïde boobu yàlla may nañu si euh, mu ngi fi mën nañ ko faj ci loo xam ne ni ci ci lu gaaw euh, moom lañ koy faje euh, mi benn sunguf boo xam ne ni po la ñi bii mooy wàllu hémorroïde mooy moom lay faje hémorroïde ñetti biteel la si nit di jël am na bii am na ndox waaye nag andiwuma ndox bi tey waaye am na bii am na ndox waaye même ku koy jëlit dama lay digalit matière bi boo ko naan ndax matière baaxul ci po na ut foo ko segg nga naanee ko nga naanee ko noonu comme li tax nag bii mooy comme ñu ëpp ci Europe ñu ko soxlaa bii la ñu faral di mën a jël waaye duñ jël ndox bi ndax duñ nangu ndox mi mi déplacé wu di dem foofu moo tax bii lañ ëpp lu ñu utiliser waaye bii la ñuy fajee hémorroïde allah téléphone yaa ngi noonu affiché ci baaru écran bi euh, képp koo xamante ni da ko soxla ak fépp foo mënta nekk ci àddina bi mën nga ko daal di woo muy Cheikh Babacar Diouf rahma euh, numéro téléphone yi nag comme ni ma ko waxee affiché na woon ci baaru écran bi euh, maanaam néew kattan nekk feebar bu sonal góor yi ñu baree bari yàlla may na la ci ba ñëpp nangul nañ ci néew kàttan tey amaana wax waxaat du bëri wax leeral la tey boo ci doon indi ay leeral ci néew kattan bi muy faiblesse sexuelle. néew kattan foofu moom danaa ci taxaw tuuti. ndax ñu bari ñaare li ci ëpp mbokki internet yi ak télévision yi ci lañ bokk am na application bi ñuy wax Vicmac da nga koy télécharge rek mboolem loo bëgg ci lu bon rek ma nga fa boo ko fekkee ne da nga koy seetaan di faral di foye sa bopp olof di ko wax mballu eh, di faral di foye sa bopp parce que awret sidit la sidit yooyu daa iman boo koy téyee di ko xëcc di ko xëcc bu yàggee sidit yi mën na bàyyi te bu sidit di bàyyi rek da ngay daal di am problème mu néew kattan boobaa nag kooku benn la am nañ ci boo xam ne ni borom daf ko judduwaale kooku moom nañ ma ci may ngànt man mënuma ko faj bi nga xam ne nii mën naa koo mën naa ko faj mooy ki nga xam ne ni borom da doon foox ci ba mu nekkee euh, quinze ans ba ba muy am vingt cinq ans wala yooyu su boobaa loolu mën nañ ko faj wala koo xam ne ni moom daf la dab kooku it mën nañ ko faj bi koy fajee nag mooy biteel biteel biteel bii moom lañ koy moom lañ koy fajee mooy wàllu néew kàttan ci ñetti biteel incha allahu rabbi boo ko naanee yàlla mën na la ci dimbale loolu amuñu sikk sàkk ci loolu moom loo xam ne nii la ba tey ci wàllu néew ka néew kàttan bëri na ay signes yoo xam ne ni daf koy faral di def day ànd ak day raxas deret bi daf lay jox maniyu bu baax a baax a baax daf lay jox maanaam raxas ma niw bi raxas deret ji bu ko defee jox la kàttan lool loolu moom awma ci lu ma ci ragal wasalaamaaleykum wa macha allah macha allah wax bi leer na te te am na solo mu mel ne nag euh, wàllu siti ndoxum siti day sonal mag day sonal xale ndoxum siti garab bi ndoxum siti yi nga waaw siti am nañ ci ay buntu moom itam waaye li ci ëpp mooy nit ñi nañ bàyyi xel jën yi ñu lekk surtout jën bu ñu tuddee o o mooy jën bu ñuul bi ci biir boobu moom chute la ñu bëree gën a bëri dañuy wax yaboy yaboy yaboy waaye o moo gën a bon euh, moo gën a bon ci yaboy kooku mooy faral di indi chute nga gis ne léeg-léeg tànk yi di xar euh, dara boo tëdd ñori ko karaw gi di dagg di rouge euh, bët yi di xasan nopp yi di xasan wey di ñuul yooyu chute la yooyu foo ko gis rek chute la chute yi moom itam mm, biteel la yoo xam ne ni da nga koy jël nga di ko naan boo ko naanee incha allahu rabbi yàlla mën na la ci defal euh, sutura mooy mooy bitel bii li tax nag ma def ci sama photo bi pour bañ kenn koo xam ne ni mën na ko pirate ci lu mel noonu ki la jaayee bitel bii te amul euh, sama photo amul ticket bi jàppal na du man du Cheikh Babacar Diouf Rahma moo la ko jaay wasalaamaaleykum wa rahmatulah. macha allah numéro téléphone yaa ngi noonu di 78 804 55 03 wala 70 822 63 86 mën ngeen koo jël ci baaru écran bi gis nañ fi nag ay xaatim yu am solo waaye gis nañ fi tam wàllu bayre ubbeeku euh, càngatu bayre gi ñu bari nag ku ne yaa ngi yor sa butéel di càngat waaye xam nañ ni suñu borom may na la ci lool lan nga ci baax a jàmm yàlla. waaw bayre ba tey dinaa ci taxaw tuuti. man Cheikh Babacar Diouf Rahma du ma tëb tëb rek jox nit bayre du ma tëb tëb jox nit bayre ndax bayre boo tëbee tëb jox ko nit bu amee gàllankoor yaa ko indi gàllankoor bayre lu ko jiitu mooy kaaraange kaaraange moo war a jiitu bayre après bayre nag après kaaraange nag lay bayre di soog a ñëw bayre am na bëri nay façon am na côté yoo xam ne nii ci côté zulmaan yu lay dox am na côté yoo xam ne ci côté mystique wala nu euh, zulmaani yu ci lay dox am côté yoo xam ne ci wàllu nuuraaniya ci lay dox ñaari façon yëpp nag alhamdulilahi rabil alamin mi xam-xamu mystique mi xam-xamu nuuraaniya ñaari xam-xam yëpp yàlla dénk nañu ko wax dëgg yàlla am ñu ngi ciy jëflante ak nit ñi ci wàllu moo xam bayre tubaab moo xam nit ku bëgg place moo xam nit ku bëgg kayit moo xam nit ku bii xëccoo dara xëccoo moom yàlla def ñu si may dañ ci wóolu suñ bopp loolu bu ñëwee it mooy biteel bi danañ koy faral di joxe ci bayre xoolal biteel bu baax photo moo ci nekk pour yéen sama photo moo ci nekk moo nekk ni képp koo xam ne ni bëgg nga si jëflante ak man boo ma wooyee ci numéro bi mi 804 55 03 wala 70 822 63 86 wala 78 804 55 03 ñaari numéro yi mooy sama numéro ku ci woote man ngay jot. macha allah yow nga yow moom ngay jot direct waaye gis nañ fi tamit ay xaatim yu yu am solo euh, gis nañ fi ay xaatim yi nga xamante ni xaatim yi xaatimu lan la. waaw yii mbind la yoo xam ne ni ñaare duma ko bindal ku nekkul kilifa ndax euh, mbind mi dafa xaw a bari waaye képp ku ko sangoo it aw ma sikk sàkk na ubbeekul ñeel na la man naa garanti na boo ko sangoo. may naa la fii ak fukki at jërut bu dee wàllu ubbeeku la bu dee wàllu muslaay la bu dee wàllu bayra la ak wàllu mu mëntu nan may naa la dix ans jërut ngay dem fenn nga ñaalu yàlla ci loolu loolu lu may garanti la dara doo ci am benn gàllankoor ci loolu loolu nag moom mooy euh, mbind mi mbind mi nag euh, sëñ bi xam naa da nga koy tàllal pour pour Bachir mën a xool da nga koy tourné da ngay tourné rek mën nga tourné kii waa euh, waaw voilà mais li ci am solo dëgg-dëgg mbind mi dafa rafet trop macha allah. waaw dafa rafet daa suukar lañ ko bindee mu nekk loo xam ne ni eh, gis na dañ ci def suuf nii pour bañ mu kat euh, pour mu mu collé wu pour bu fekkee ne nit ki lu muy naan la du am benn effet secondaire ci biir biiram. loolu moo daa suukar daa boo xam ne ni dañ ko defaree suukar moom lañ ko bindee pour mu bañ a gaañ nit ki lii moo tax lii nag euh, képp koo xam ne nii. sangoo nga ko moo xam nga jublu ci bayre moo xam nga jublu ci ubbeeku moo xam ak loo si mën a jublu yàlla man na la ci defal tawféex ba àdduna yëg ne yàlla defal na la ci tawféex. macha allah xam naa nag euh, dañuy daaneeleeg ci waxtaan wàllu sunguf bi sunguf bi mooy ban mooy mooy sunguf pommade bi de emballage bi rek. waaw bi sunguf la boo xam ne man maa ko lëggeel si sama bopp maa ko lëggeel si sama bopp ni ma ko lëggee sama bopp nag moom. dañ koy wal guddi lañ koy wal ay jigéen lañu tànn ñu wal ko damay bañ joxe secret bi gars yi piraat ko waaye képp koo xam ne ni jëfandikoo na ko ci wàllu yaramam eh, lépp loo xam ne ni nekkoon na ci yaramam ci ay gàllankoor ci ay def-def ci ak lu mëntu doon loolu yàlla mën na la ko ci dimbale bam dañ ci ba jeex takk takk takk takk lu ñuy jëfandikoo la waaye li ñuy liggéey la mu jëm nag ci wàllu mystique. waaw kii xam nga loolu xamal na wàllu rab la waaye rab la effectivement képp koo xam ne ni rab daaneel na ko boo ko ko joxee mu suuroo ko dana xaw a weex nag ci moom waaye boo faxee ba njett ko ci yàlla mën na ko ci dimbale dimbale goo xam ne ni day jéggi day jéggi dayo bu ko defee nag am na sangat yu muy àndat waxuma ne nag moo koy faj daf koy calmer bu ko calmer ba pare nag sangat yu muy àndat yooyu moo koy faj bam dañ tàkk ba jeex takk ba dootul delceeti loolu incha allahu rabbi képp koo xam ne ni soxla nga ko da nga contact ñi ci loolu ci fànn boobu ci numéro bi 78 804 55 03 wala 70 822 63 86 kooku mën nañ cee jëflante wasalaamaaleykum wa rahmatulah. macha allah numéro téléphone yaa ngi noonu ci baaru écran bi li ñu waral waxtaane ci wàllu faj wàllu ñaan amaana bu ñu ci doon sori bu ñu continué woon fii la ñuy fanaan te du jeex ndax yàlla may na la si balaa ñuy dugg ci mbiri actualité mbiri jamono lan ngay daanale ci wàllu faj beeg ñaan bi loo baaxee ko jaam yàlla. wàllu faj ak ñaan luñ sonn la sonn goo xam ne nii jéggi na dayoo gëstu nañ ko fu ci faj la ma dal dabee ci wàllu ñaan yàlla ñu bëri dañuy ñëw jaaxle e, bu ñu defee duma ma leen taxe dara dimbale leen te yàlla tax bañ dem ba tuddee ma Cheikh Babacar Diouf Rahma lii moo indi turu Cheikh Babacar Diouf e, e, Rahma bi waaye du caageenu ne man nag boroom million million ak milliardaire ak borom dërëm bi ñoom ñaar ñoom ñett ñii ñoom laa yemalek képp au contraire sax borom million bi ak borom milliardaire bi moom laa gën a daw tuuti hmm. ndax li ko waral mooy dinaa la wax dara tey hmm. yàlla doomu aadama yi ñooy njaboot ak yàlla gi ci kaw suuf hmm. bu ma bëggee ci seen ci sa kër dara sa doom moom lay fonk ak say soxna su ma leen fonkee rek force yow nga bëgg ma yàlla nag mindaafoon yi nekk ci aalam bi du dox yépp ci njaboot yàlla gi la bokk waaye ci doomu aadama biir njabootam googu doomu aadama moo ko ci gënal moo tax ñu fonko doomu aadama doomu aadama yooyu ñu fonk nag moo ñu tax sonn ci mbooleem fànn yi li tax nag ba tey Cheikh Babacar Diouf rahma bi ginnaaw bu ma jotee ndigal ci sama sëriñ bokkuma woon ci sëriñ ci nangoo dugg ci internet bi kooku dama si insiste toujours pour mu leer ndax li ko waral mooy sama sëriñ daf ma wax na ma bu ngeen duggul ci internet bi ñu bëri danañ nekk di yàq internet bi di yàq mbiru sëriñ jaaree ko ci site internet te fekk ne sëriñ am na en réalité moo tax lii mooma dugal ci loolu maa ngi dénk mboole mi koo xam ne ni mooy di ma seetaan ak foo mën a nekk moo xam ngay sëriñ moo xam ne ko sëriñ ak koo mën a doon ci ñii maa ngi lay dénk nañ maytunduko di lor doomu adama yi doomu aadama yi mooy alalu yàlla képp ku leen lor yàlla dina la lor képp ku leen fonk yàlla dina leen fonk képp ku leen bëgg yàlla dina la bëgg képp ku leen bañ yàlla dina la bañ man Cheikh Babacar Diouf Rahma day parewuma pour lor benn mindaafun ci sama loxo bi parewuma hit pour tooñ benn mindaafun ci sama loxo bi maa ngi dénk ñëpp ñu bañ a tooñante ñu bañ a lorante ñu fonkante ñu dimbalante ñu jàppalante ñaan yàlla nag am na lu wér la lu fi nekk la loo xam ne ni te mosut fay jóg eh, nit ñi nag dugal nañ ci lu ci bokkut ñu bari dañ may woo di ma tawat lu mel noonu naan diw jox naa ko sama xaalis ba léegi ni gisuma sama garab mu mit ma lool surtout ci côté diaspora bi man day Cheikh Babacar Diouf Rahma képp koo xam ne nii jëflante na ak yow di nga jot sa garab ak foo mën a nekk ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa euh, fi ñu daaneel waxtaan wàllu actualité Sonko Jomaay Jomaay Sonko Jomaay euh, mi ngi déroulé pour le moment di def di jàpp di di déroulé maanaam côté def ay réforme ba ci littoral bi ah, ñi nga xam ne ñoo fa tabax te jaaru yoon ñu ngi koy jëm a récupérer yooyu Jomaay euh, ak Sonko seen avenir ci wàllu baati lan nga ko gisee. waaw yaa ngi may laaj nag loo xam ne ni lu lu ma sawar pour wax la waaye lu jëfee wax la mii lan mbiru baatin joomaay ak sonko dañoo waxoon ne joomaay mooy sonko sunko hit mooy président joomaay kon li mooy ñoom ñaar bu ci kenn warante bu sonko war président joomaay bu président joomaay war sonko des na beneen wor mooy ñoom itam bu ñu war askan wi lañ commencé woon diggee ko ak askan wi ñu ngi koy def li ma gën a neex ci lañ def mooy ministre yi wàññi nañ ko ministre bu nekk buñ ko wàññee loola xaalis boobu man naa demaat ci askan wi kër yi nga xam ne nii dañoo pare pour récupérer ko loolu président Sonko waxoon na ko waxoon na ne na leer képp ko xam ne ni tabax nga ci lu nekkul yoon danañ ko jël danañ ko delloo ñi nga xam ne ñoo ko moom lii mooy dëgg bu mu yem ci tabax bi boo xoolee ku mel ni tukulóoru bàyyi maa ngi koy jamono bii ci baykat yoo xam ne nii nangu nañ seeni suuf sonal leen ci tëj leen ci kaso ci loo xam ne nii tegul fenn loolu ba ba kañ ki man ku ëpp doole moom mooy duma ku néew doole ku néew doole moom daa man amul fu mu loolu nag moom daf fi dëgg-dëgg dafay war a jeex waaye njot naa ne dana jeex ndax dañoo jógee ko ci prison matul un mois ñi dem palais kuñ tëjoon loolu jàngat la boo xam ne ñoom ci seen bopp sax doy na leen jànga ñoom ñaar kuñ tëj tëj la ay weer xañ la sa lépp nga génn ñi di la garde ñi la tëjoon ñoom ñoo lay garde yaakaar naa bañ bi ñuy jëli Ousmane Sonko waa bib loon ñi leen di garde en takk der ñoo leen di garde kon ala kulli xal li mën a xew mooy loolu war nañ ko bàyyi xel am nañu yaakaar ñi ngi liggéey te ñi ngi leen di ñaanal yàlla daa iman ndax bu échegee ñun ñëpp ñoo échec ñoom nag dëgg-dëgg pour ñu gouverner Sénégal jamono bi dana métti dana diis lool waaye nag yàlla moo mën a téye nguur yàlla yàlla téye leen nguur ma tëjee foofu ne nañ bàyyi xel ne nguur juróom-ñaari doole yi waliyu yàlla la yor président juróom-ñaari doole yi waliyu yàlla la yor loolu yonentu moo ko wax képp koo xam ne juróom-ñaari doole wali yàlla nag kooku boo koy song songee ko nànk boo koy attaqué attaqué ko nànk boo koy bàyyi xel bàyyi xel nànk waaye bu ñu leen profito nañ leen may batma ñi liggéey réew mi dana na naat réew mi am nañ ci yaakaar dina dox loolu amul sikki sàkk du baatin bu fekkee ne li ñu waxoon bu ñu ko defee rek réew mi dox kon loolu du baatin waaye li nga xam ne ni mooy moo fi am ba des moo di ne ñi ngi ñaan yàlla ñoom bu ci kenn war kenn bu ñu war askan wi lii daal laay wax ci loolu wasalaamaaleykum wa rahmatulah. macha la xam naa point bu mujj bi rek daanaka jeexal jeexal nañu émission bi euh, muy Sa Thiès Eumeu dañuy bëree dimanche bii sànq am na lu ma si doon junju lan ngay wax si combat waaw caa euh, man foofu ñoom ci seen jëmi bopp man bu fekkoon ne tàggoon nañ ma ñoom ñaar mag ak rakk duñ jëlandoor même combat même année. ñi dawandoo ci kii bi loolu baaxut ci ñoom déedéet baaxut ci ñoom bu fekkee ne nag tegtel yañ leen jox moom moo leen eh, moo tax ñu def loolu ah mën nañu dugg ci erreur waaye combat la boo xam ne nii yuuxu dana jug foo xam ne ni nit mësu ko fa fogee mi diggante sa eh, Sa Thiès ak Eumeu Sène eh, li mën a xew mooy may ñaan yàlla yàlla bu ci benn deret maa ngi ñaan yàlla it yàlla bu mu ci am benn yàqule nañ dem bari ko si jàmm ñëw si jàmm buñ ci am dara luñ ci luñ ci lor waaye nag baaxut ci ñoom ñaan ñëpp. xam nañ ni wal fajri euh, Sidi Lamine Niass moom moo ko sanc moo ko moom Sidi Lamine Niass ñëpp xam nañ ni njabootu baay la yow ngay taalibe bàyyi tey démb mu am lakk-lakk bu doy waar bu am si biir organe ba ñenn ñi di wax waxu jinne la yow lan nga gis lakk-lakk boobu. Euh, Sidi Lamine Niass organam am jinne mun fa dugg ba di ko lakk ndax baayam wàllu yàlla la maamam wàllu yàlla la moom it wàllu yàlla la gannaaw man Cheikh Babacar Diouf mu xew mii rek la jinne mënut dugg samay 18 sàkkatuma ak dëgg-dëgg euh, Sidi lemin waaye lu mën a xew mooy cat la bii dañ ndax tale la boo xam ne ni fi ne nag bu caaxaan jeexee dëgg des seen ak aaya la télé bu am yaakaar la moo tax tey bu ma doon digal président Diomaye wala may digal euh, euh, Sonko dama leen wax na leen dee leen jàpp télé yi mel ni Walfadjri ak yi nga xam ne ni ñoo méngoog loolu parce que ñoom ñoo leen wan fi ngeen di mën a defar ki la filmeel sa bët bi métti bi kay moo la wax na la fajal bët bi waaye ki nga xam ne nii du film dara lu du lu rafet kooku dëgg-dëgg boo koy seetaan it yaay waaye yaay sonal sa bopp waaye li ma leen di digal mooy nañ seetaan loolu jinne la du jinne loolu moom dama koy wax mu leer du jinne moo lakk euh, moo ko lakk ndax jinne xalaatul dugg foofu asalaamaaleykum macha allah jinne xalaatul dugg si fi nga xamante ni moom mooy wal fajiri euh, di leen masow bu baax a baax waaye nag ñu ngi si catal waxtaan bi euh, Cheikh Babacar Diouf Rahma lan ngay daane li may daanelee maa ngi dénk sama bopp di ko dénk mboolem waa adduna bi nañ leen ragal yàlla nañ leen jaamu yàlla nañ leen liggéey man mii di waxe yow place laa yor di ci liggéey nekk ci lu yàgg di ci liggéey ba fi nii maa ngi waaje immigré place boo xam ne nii ay dàll lañ cay jaay ak ay kurus ak ay mbaxana ala kulli li mën a xew mooy nit ñi maa ngi leen di dénk ñi ragal yàlla ñi liggéey ñi jaamu ñi jaamu yàlla ñi ñaanlu yàlla ñi ñaanal yàlla it réew mi ñi ñaanlu yàlla ñi ñaanal yàlla réew mi réew mi nag dëgg-dëgg am na balaa yi wàcc waaye ñi ngi ñaan yàlla yàlla yàlla def bala yooyu mu teggee ko si jàmm mu teggee ko ci jàmm mu teggee ko si jàmm réew mi naat réew mi dox ñëpp gis seen bopp ci avenir ci naataange ak lu mënta doon waa diaspora bi ñi mën a ñëpp si nit ñi it nañ bay gaal yi nga xam ne ni moom lañuy dugg nañ toog ci réew mi réew mi dana dox nañ toog ci réew mi réew mi dana dox bu wor amul rek réew mi dana dox te am nañ yaakaar ne war du am ndax ñaar ñu ko séq ñëpp ay gor lañ wasalaamaaleykum wa rahmatulah. Euh, macha allah euh, Cheikh nga xamante ni mooy Cheikh Babacar Diouf Rahma moom la ñu seqaloon waxtaan numéro téléphone yaa ngi noonu nag ci baaru écran bi képp nga ni soxla na ko mën nga ko woo ci lépp li nga xamante ni amaana mi ngi ci yow ci sa wàllu wér-gu-yaram sa wàllu avenir te waxtaana nga ci émission bi boo ko woowee téléphone di nga ci am ay leeral yu gën a leer mu nekkoon euh, Ousin nekkoon Bachir jërëjëf نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي